Thank you. mouvement Dekkal sa gox day sawal pour teew parce que image bu rafet la te jàmm gën si Kàmb Mbaaw image bu rafet fi wut looloo waral suñu teewaay fii. waaw ba tey ñuy dellu di la laajaa rek mouvement bi kañ la juddu ak bu euh, buñ mënee xam aussi seen euh, siège social fan la nekkee. waaw mouvement bi bi mu juddoo yàggul maragul 4 mois mais ci li muy œuvre mooy développement jàmm gën si Kàmb Mbaaw te lépp loo xamante ni woon nañ ko ak fépp fu mu nekk ci jàmm gën si Kàmb Mbaaw mouvement Dekkal sa ko taxaw na pour ñëw dugal ci loxoom ndax Diamaguène Sicap Mbao du kenn moo war a jóg pour defaral ni ko ñun ñu fi dëkk juddoo fi yaroo fi xàmmee fi nga xam ne suñu lépp fi la ne ñun ñoo war a jël suñuy responsabilité war ñu ci xaar état war ñu ci xaar maire war ñu ci xaar keneen ñun ñi fi dëkk nañ jël suñuy responsabilité doxal dëkk bi parce que dëkk ña fa dëkk ñoo ko mën a doxal nit da ngay def sa sa sa sa devoir ba noppi doo ko laaj sa droit te mouvement Dekkal sa gox ci cadre boobu lay dox. waaw ba tey tamit di dellu di leen laajaa rek comme gis nañ ne mouvement Dekkal sa gox la te wax ngoo si biir wax mooy jàppale askan bi ak aussi dox ci li ñu bëgg est-ce que am ngeen benn programme boo xam ngeen teg ngeen ko pour école yi vu que vacances yaa ngi ñëw. waaw loolu jeunes yi nga xamante ne ñu ngi fi ay corridor ak yeneen jeunes yoo xam ne ay association lañ mouvement Dekkal sa gox dafa nekk partenariat ak ñoom fi ñu toll ñu ngi élaborer benn calendrier. pour euh, vacances yi ñu xool nan lañuy ñuy récupérer non seulement élèves yi dem examen mais ñeen ñi nga xamante ni vacances de ak lépp loo xamante ni mën nañoo retenir xale yi ñu des ci koñ bi di jàng nekk seen wetu yaay loolu ñu ngi ciy dox parce que dañuy gis ni nawet xale yi dañuy dem ay géej di dugg ci lu ñu war dugg te yooyu yëpp mouvement bi daf ci war a dox maanaam jàppale parents yi ci éducation xale yi yooyu nag ay camp de ñu ngi koy xalaat. recadrer xale yi delloo si leen xamal leen ni vacances pour ngeen mën a noppaliku la mais du pour ngeen mën a dugg ci loo xamante ni war leen cee dugg yooyu yëpp ñu ngi ciy xalaat te en incha allahu rabbi ci kanam tuuti di ngeen ci xam dara ba école tëjee. suuratul falaq bismillahi rahmani rahim a'uudu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq

ka na nalengke sa lohon masade bismillah ura mane ura tapati ada watapa maa ma al-umalu wa ma kasaba selanaran selanaran zatulubin wa mra'ataha hammalatal hatabi fi jijiha hablun min masadi nyan bengewa barang itu kesitu Allahumma inni a'udzubika minam khobse wal khaba'ese Ayuh, kan? Ayo, takbir. Takbir. Tahlil. Assalamualaikum. Love. doble. Kako le Le do madalane se. বাল বাইতে আল্লাহি আতো আমাহম মেন জয় ওয়া আমানহম মেন খাউফে হারা রাসূলুল্লাহ sallallahu alayhi wa sunu yonent te Yàlla bu tedd bi neena iyaakun maa wal kaziba fen fa innal kaziba ndax fen yahdi dalay dogal ilal fujoori si saasa wa innal fujoori ndax saasa yahdi dalay dogal ilal naari si safara No tu corbai. Ne faceți? Compara. Ia, te lăsă. Ce sunt letele magnate? Le, lesovă. Magnate? Lesovă. Lesovă. Le menton, la joue, les lèvres, les yeux, le nez, la bouche. L'oreille nous sert à quoi Écouter. Le nez nous sert à quoi Respirer. La bouche nous sert à quoi Goûter. Les yeux nous sert à quoi Regarder. La langue nous sert à quoi Goûter. sukran sukran kan moo moom bi bala nga wax bismillah doo toog boo toog nga wax boo waxee bismillah nga commencé lekk boo lekk est-ce que da ngay wax ah est-ce que loolu baax na kon booy lekk nan ngay def da ngay ñëpp sa gémmeñ wi hmm. est-ce que leer na koy lekk tamit bu fekkee lekk bi benn la comme masalan fonde booy lekk fonde est ce que mënu da ngay lekk sa fii dem tibb fale dem tibb fale lekk est ce que loolu baax na nan ngay def da ngay lekk sa kanam dégg nga est bu ñuy lekk ban ban nan la ñuy toogee nan la ñuy def booy lekk da ngay taxaw déedéet nan ngay def dangay toog comme ni ngay toogee booy booy julli booy taaya. am na nooy toogee booy toog booy toog nooy noonu ngay noonu ngay noonu ngay toogee leer na léegi boo lekkee ba pare la ngay def da ngay jóg rek dem nan ngay def da ngay raxasu après nga ñaan ban ñaan ngay ñaan alhamdulillah allazi at'amani hada wa razaqanihi min ghayri min ghayri hawlin minni wala quwwata mais loolu xam nga lu muy firi de lu muy firi booy lekk lan ngay wax alhamdulilah lan mooy alhamdulilah mooy da ngay damay maa ngi sant yàlla alhamdulilahi allazi ataama ataamani mooy maa sant yàlla mooy yàlla bi nga xamante moo ma moo ma ma moo ma may ak lan jox ma ak lan ah jox ma ma lekk jox ma ma nan ma sol yere dal li bo boo bo pare noy dem dang ko koy sante moy yalla subhanahu wa taala mi la war sagal dang ko koy dang ko koy sante bu ko defé mu mu yokal la ndax yalla neena la in sakartum la azidan nakum bo len ma sante man ma ma le ma sha allah barakallahu fikum kon ci ma'ana أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي صدق الله العظيم عن إيذاء الجار ترى لو صدقنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا أنت يا لو تدبر فوان المهان يؤمن بالله كل يال واليوم الآخر أبس بنت فلا يوزي جاره Bambaloo dëkkandoo rawaahu Buxaari Buxaari moo ko solo. A'uuzu billaahi mina shaytaani assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuhu. Wa aleykum salaam wa rahmatullaah.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 هي وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم كل تعلم القرآن الكريم غنير جانب القرآن وتعليمه أجانب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي على بتد بدفع وحنه خيركم كغنسير من تعلم القرآن ما كجانب القرآن فهو له طريق جانب di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah man la monsieur Mbaye directeur école nouvelle de Boune ñëwoon tay assister conférence école franco-arabe euh, Daru Nabi ñi nga xamantene monsieur Faye mo nek le directeur di gis euh, taxaway bi mu am ci xalé yi ak ay katam gis ne xalé yi mokal nañ bu baax a baax a baax a baax yoo monsieur Faye gis nañ le travail qui a été abattu durant toute l'année scolaire kon dila gëna gën eh, encourager mais aussi dila féliciter aussi ci ci liguey bobu mu nek nit ko am passef nit ko am aussi taxaway ci ay eh, xaritam ci ay jangale katam ak lepp waaw di wax ni daal ñu kontan nañ bu baaxa baaxa baax di ñaanal école bi école bi gëna jëm ci kanam mu dem ba am moyen ak secondaire lepp daal Waalaikumsalam ya sohna mama. da nga dégg muy wax ne jigéen gi des na ko laaj nan la doon sàmmee si këram te nga xam ne lu muy sàmm si këram lu rëy la luñ koy laaj la donte sax toppatoowu ko xoolu ko teewul nag jigéen ñu baax ñi ñu koy xool ak di ko bàyyi xel te sax jigéen li tax nga war a gën ab tànkam nag xemmanteefam si góor daa bëri lool te moom jigéen ab génnam dadul yem si moom képp ndax bu génnee góor taseel mu xool ko da si am bàkkaar waaye bokk na si jigéen bu bëggee baax day nangoo muñ ndax bànneex andiwul kenn si kërub sëy xanaa da ko fay fekk ko la waaye andiwu ko fa kon faaw ku bëgg doom ju baax day nangoo muñ bu baax soxna jaara bu so daan na wax loolu yal na yàlla yokki te mooy muñ si la mboolem jigéen ñu ah di am jigéen ñi ñuy gis ñi am doom ñi di yéemu ak di barkeelu si ñoom dañoo nekkoon si lu baax nangoo muñ suñuy fàttaliku Sëriñ Tuubaa xaadirahullaahu maxtaalahu anhu daan na wax ne wàlli yaa

lu mu wax ndax lu mu wax am na solo. jërëjëf jërëjëf message bi am na solo waax a baax a baax a baax kon soxna yi message boobu am. Ah. assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh Bismillahirrahmanirrahim. Wasam siwa duha wal kamar. Jibril, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Abilni anil imani, Wahyu singa halahmu, Antum minu billahi, Nanggagam yalla, Wa malaikatihi, Aki malaika, Wa kutubihi, Aki tere, bisu pencu wa hadir nanga gëm ndogal xayrihi at bu baaxul bi xaala mu wa sadaqta dëggal nga muslimu muslim 呀呀！ ميزان درب ميزان درب واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث اعتدال اعتدال طمأنين طمأنين دم تسليم Je déclame, je proclame pour exalter cette flamme qui enflamme mon âme. Je déclame sur les trames des problèmes de ma société. Je déclame pour combattre les, les maux de ma société. Un monde à l'envers, où tout se fait de travers, des femmes en bas de fer, on se croirait en enfer. Elles sont marginalisées, maltraitées, sans parler d'être respectées. En être rempli de douceur, qui mérite tout le bonheur, qui n'a rien de plus cher que son honneur. Elle possède tout sauf de la rancœur, mais elle fait la connaissance d'un menteur avec un esprit de trompeur Que au devient de la traiter, la maltraite de la pire des manières. En l'enfonçant dans l'obéissance, détruisant toute son existence, mais elle n'a rien d'autre que sa tolérance. Un homme qui était censé être son âme, essuyer ses larmes, apaiser son âme, attiser sa flamme, la maltraite elle tourne le dos à sa famille, elle coupe tous ses liens pour pouvoir tisser de nouveaux liens. Elle essaie de composer avec sa nouvelle famille, celle de son mari. Après tous ces sacrifices, tu la maltraites. Malgré cette vie conjugale difficile, elle endure tout ça dans le silence. Personne pour comprendre sa souffrance. Elle est armée de patience. Elle a comme objectif la persévérance. Tout ce qu'elle te demande en retour, c'est ta gratitude que tu changes tes habitudes. Elle mérite d'être traitée comme une déesse. Elle a besoin de ton attention ainsi que de ta compréhension, que tu la traites avec précaution. Slam. Ah, ma ngay jox micro pour mu wax ay Je dama leen présenter kii nii pour yéen waa localité bi yëpp ngeen xam ku mu doon yéen waa localité bi muy parent d'élève ak si si dëkk bi la dëkk doomu dëkk bi la. ngeen bàyyi ko xel bu baax tamit ngeen jàppale ko le 29 incha allah daa livre bu mu te jàmm gën fii nii jàmm gën laay wax zone Fass Mbao suñ doom yëpp lu ñu leen waxal mooy ay bandi lañ visage boobu noonu lañ bëgg a changé moom ak équipe am moo tax mu jug fas yéene jànkonteel injustice bu am si dëkk bi fas yéene jànkonteel tamit euh, mauvaise rumeur yi nga xamante ni moom la doomu jàmm gën wala doomu Fass Mbao di dégg kon kii ça applaudissé nañ ko tàcc bu baax a baax baax moo bind livre bii ngeen di gis la 29 incha allah la war a génn 5000 lay jot tamit boo la ko mënee jàppale tamit bu leen fàttaloo Je suis le petit. Le très petit qui trouve de l'appétit en faisant des bêtises dans la poésie. Mais t'inquiète, ça va, le mot m'a béni. Il m'obéit sans donner son avis. Il est devenu mon ami, ma compagne de folie, mon amour, même ma vie. Avec lui, je me sens à l'abri et je l'envie. Ainsi, j'écris et je crie. Il est chiant, tantôt il est bien. Il a le bonnet de la rage l'esprit des manges, le don du tricage, l'idée des anges et le cribouillage dans ses pages. Salam alaikum, na ngeen def dégguma dara de na ngeen def dégguma dara de ani soppey sëñ Babacar Sy gisuma leen de soppey sëñ Babacar Sy seen loxo si kaw euh, texte bi maa ngi koy képp kuy soppey sëñ Babacar Sy euh, bizarrement j'ai trouvé l'appétit tardivement j'ai eu l'envie agréablement. J'en suis ravi. Avec lui, je me sens à l'abri. Avec lui, on est plus proche de Nabi par sa philosophie, sa façon d'écrire, sa poésie. C'est lhomme si religieux du nom si fils de la jumalique, l'authentique, l'homme pacifique aux voix islamiques, le père magnifique aux paroles coraniques. C'est bien Serine Babakar. Mon bakar al halif est né avec la bienséance pour l'islam il avait l'endurance pour ses proches il savait la tolérance pour des conseils il donnait l'évidence dans ses discours on trouvait la pertinence de par son habillement il n'y avait que l'élégance baba Babacar au-delà des nuages plus proche de Dieu que les anges pourtant il se disait humain pas hommage moi par mes écrits je te rends hommage Serine Babacar, le marabout le plus élégant, le plus galant, le plus charmant de tous les temps. Mamam si, Taruni Osoman si, Talini Souf si, Kokei si, Khalif si, Babacar si. am na ñu xam fi Cheikh Omar Foutiyou Tall Amna ñu xam fi Cheikh Omar je vais un peu vous parler de l'histoire du Cheikh Omar Foutiyou Aujourd'hui, j'écris sur l'élégant, le géant du Coran. Au bruit s'écrit, ambiant, proclamant Ya Allah, supérieur à son maître et maître à bas âge, unique parmi lettres que je n'ose le comparer en l'ange. Existe-t-il des lettres pour décrire son personnage Malgré mon caractère piètre, je prends le soin et je m'engage. Pour vous parler de l'histoire du Khalif général, El Hajj Omar Foutioutal, grâce à lui pour l'islam du Sénégal. Omar, un homme de source qui est allé vers le savoir. Par ses voyages spirituels, il détient le pouvoir. 13 ans de voyage, il allumant cette flamme. Le Coran dans son cœur, plus profond dans son âme. Avec le titre de Khalif des Tidjan, il répond au devoir. Il revient dans ses terres avec l'idéologie de promouvoir, continuer le travail du prophète, faire la propagation de l'islam. Il créa son empire musulman. C'est un grand, un savant, al-imam. Je vous parle de l'histoire du Khalif général El Haji Omar Foutioutal, grâce à lui pour l'islam du Sénégal. Omar, un homme prédictif, annonça l'apparition du héros colonial, le souverain des Baïfal, le noir qui a suivi les blancs et a détourné tous leurs plans pendant sept ans. L'homme qui a prié sur la mer, tout bas sa terre, dont l'islam prospère, est un repère qui vous libère de l'enfer, Mamdi Rabousso sa mère, l'homme au Hasida, Ahmed Bamba, le père, Omar le Tordo, le surnommé l'aigle du Wallo, les Halpulars pleurent ta disparition.

moo tax wax ji dina jafe lool liñ si wax rek mooy ñoo ngi gërëm waa Daaru Nabi bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di feddali suñu kóllëre ak ñoom li may wax rek te loolu la ñu gëm mooy ñoom dafa am sas bu rëy bu leen di xaar te ñoom ñoo si muy ndamu franco arabe gis nga li ñuy yitteel mooy franco arabe dara yitteeluñu lu dul franco arabe te franco arabe nekk na jamono bii ñu nekk li nit ñu soxla di gën a assurer parents bi di leen gën a wax ni seen doom yi nga xam ne jël ngeen ko dugal ko franco arabe du ngeen ko réccu je pense que du ngeen ko réccu du bëgg lu neex ñi moo tax ma koy wax gis nga ñun dañoo nekk ci système franco arabe xam franco arabe nu muy demee xam franco arabe fi mu jëm xam franco arabe fi mu jugee te franco arabe mooy li choix bi nga xam ne sénégalais yi ñoom ñoo ko choisir te franco arabe jamono ji ñoo ngi def ay résultats yu mag ci Thiaroye ñoo ngi def ay résultats yu mag si Sénégal. loolu tax na ba nga xam ne état senegal muy Macky Sall ba nag wax politique man soxla wu ma politique ma politicien faralu ma Macky Sall faralu Askan Wi man li ma ñor mooy diine islam moo ma ak franco arabe mais Macky Sall dafa gis ni franco arabe yi ñoo ngi liggéey imposé wu neexaluñ benn état imposé wu ba état jël. benn bërëb bu mag tabax ko pour franco arabe ñu tuddee ko Daara Rama ñu yóbbu ko jam ñaajo képp ko dem jam ñaajo fi nga xam ne fa la ministre de l' nekk soo bara ko romb da ngay gis benn à côté benn école bu mag bu ñu tuddee Daara Rama suñ nee Daara Rama nag dina jaaxal parents dina mais Daara Rama mooy comme Mariama ba ni élève Mariama jigéen ñi gën a aay Sénégal foofu la ñuy jàngee daara Ramatoune Sénégal ñu fi gën a aay si franco arabe foofu la ñuy ban élève ngeen gis mu nekk franco arabe génn ñu xeeb ko te ngeen jël exemple gis na Sénégal ñi fi tekki ñépp si franco arabe lañ jaar jox joxe benn exemple bu gàtt dem si yàlla Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm kan moo gën a dégg tubaab doomu daara kon franco arabe ngeen xam ne parents yi su ngeen ko gëmee gëm franco arab gëm na boopam su ngeen ko gëmul itam gëm na boppam kon nag li gën si parents moo ngeen teel a gëm franco arab loolu mooy seen avantage doom mooy seen avantage lépp parce que tey bi su jàngee franco arab dina xam diineem te waajur bi àq la si yow nga xamal sa doom diineem diine bi sa doom war a xam àq la pour nga xamal ko ko bis boo ko xamalul sa doom bi bisu yow man xëy am di nga ko layoo ak xalaat yi nga xamal sa doom àdduna sa doom su xamul àdduna nan lay mën a diriger bisa ñun dañuy gëm ni ñii ñoo war a nekk président de la république pour Sénégal changé bisa ñun ñëpp xam nañ ne tubaab bi li si ëpp lu ñuy jàngal mooy naxaate ñii nag dañ leen di jàngal ne naxaate baaxul tubaab bi lim ñuy jàngal mooy wor ñii dañ leen di jàngal ne wor baaxul kon loolu motax jeul sa dom yoo franco arab am na njariñ bu maga mag vraiment kontaan nañ ngeen xamne daru Nabi mo ngi si gox mo ngi liggey liggey bu am solo daru Nabi seni i élèves ñoo ngi dajeeg yeneen élèves di def examen di am pourcentage bu baax. alaykum wa rahmatullah eh, xalé yi ñu ngi leen di ziar bu wër di ziar élèves di ziar parents d'élèves di képp ku fi nekk ah di leen ñaanal ngeen gudd fan et aussi tamit yaakaar bi seeni i wéyjur am si yéen ñoo am ci lu kaye seen njot ñi leen di jàngal aussi yàlla gën leen kattanal gën leen dooleel ba transmettre savoir dafa metti yéen it ngeen gën leen a wekk gën leen a teg place ba xam-xam bi ñuy def ci yéen mu mun a barkeel kon ñu ngi leen di ñaanal ngeen barkeel donc ñun nag bariwuñ ci kàddu euh, di jàjj rek askan wi yëpp ñu xam ni euh, ni réew mi doxee sunu responsabilité ñun ñëpp la surtout les parents ci école yi xëy na des leen di des mais si kër yi parents yi ñoom ñoo a éducation bi kon man des parents tout ce qui brille n'est pas de l'or euh, quantité ak qualité du sont pas ñu ñu Nous qualité la di qualité de lañu war parce que tout dafa tout montre-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras mooy que wan ma ndaw yi nga am ma wan la ban ëllëg ngay am te ndaw yi tey am na ñu koy xëccoo ak ñun ñoom ñii pour dugal ci ñoom loo xamante ni ëllëg du ñu jariñ seen askan te seen i duñu leen mën a jariñoo am na ñoo xamante ne ay force étrangère lañ dinañ dugg ci réew mu nekk di xëccoo parents ak seeni doom ngir jëmbat ci ñoom jikko yi nga xamante ni suñu mag ñi xamuñu ko woon mais nag loolu dafay laaj ràññee ak way dàng pour xam ne ndaw ñi kat xam ak diine rek moo leen mën a sowee boo defaree sa àdduna fàtte koo defaral ëllëgam bu ëllëgee moom dina jooy kon franco araab dafa dafa dafa dafa matale kon yéen ñi yeewu jël seen i doom indi leen ñuy jàng àdduna waaye ñuy jàng seen ëllëg nan la ñuy jaamoo seen borom yéen gàcce ngaalaama lañ leen di wax kon ñu ngi ñaanal bépp parent d'élève bu indi fi doomam ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan te yaakaar gi am ci doomam bu ëllëgee yàlla defal ko ci lu kawe njottam di leen ñaanit di leen tere ñuy seetaan yenn télé yi yenn émission yi parce que tamit suñu suñu suñu suñu presse étrangère suñu sunu suñu presse euh, télé yi nga xam ñoo nekk mooy média traditionnels yi lu ci ëpp li ñuy jàngal xale yi du loolu moom mooy dëgg du loolu moom la xale yi war a dugal ci seen bopp mën naa ci jël benn exemple bu ñu naan Petit Gallé tey boo xoolee xale yi la ñuy jiitu ci ñoom dugal ci ñoom jikko yoo xamante ne du valeur du diine su ëllëgee xale yi dinañu màgg def loo xam ne seen i wayjur xamuñu ko woon ñu né dom ja nday ja da fekk du ñom nday ji yar nañ bayyi yar nañ waye télécommande bi momit da fay yar kon xalé yi da len leen xool télécommande yi fan lañuy japp ak lan lañuy duggal dugal seen bopp ndax waxtu wi lepp luñu duggal seen rek mom moom woy assalamu euh, alaykum donc ma ngi nuyu euh di nuyu wa Bon TV di leen jaajeufal ci téwa bi kon ma ngi lay siyaar bax bax di la dem mbégte contentement donc je pense que li rek moy waral ne ñu ñep ben lañ. donc ñu xewlé ñu déploré xam nga télé bi yëpp depuis ce matin ñoo ngi fii nii donc di filmer xale yi donc mooy loolu macha allah donc euh, te ñoo ngi nii war a demaat ISCP fii nii su Moussa pour jël leen tamit en tout cas ñu ngi am mbégte contentement bu baax xam naa ne kàddu gi du du bëri ndax euh, sànq lu ñu waroon wax wax nañ ko si kaw mais en tout cas ñoo ngi jaajëfal ñëpp euh, di jaajëfal képp nga xam ne ñëwoon na tey donc contexte bu nekkoon moo nekkoon donc d'habitude fête fête bi conférence dañ ko doon def mu nekk fête fin d'année xam ne moo nekkoon activité bu mujj si école bi mais vu que tabaski bi euh, donc euh, mois de juillet la ñu ne nañuy xëccu nañuy xëcc événement bi indi ko 18 juin incha allah nga xam ne donc euh, fii ak avant 10 juillet ñu ñu ñu tëj école yi. en tout cas ñoo ngi am mbégte ak kontaan bu baax a baax ñëpp ñu fi teew donc sama parents yi donc ñoom naar donc monsieur le maire délégation bu fi yónnee donc imam Kébé nga xam ne dafa dafa feebar ak ñeneen ñi nga xam ne bëggoon nañ ñëw mais ñëwuñu. en tout ñoo ngi jaajëfal ñoo ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal tamit capolis boo xam ne donc franchement parlant deux semaines moo ngi nii chaque jour école bi lay xëy donc di ñëw di répéter xale yi xale yi sànq lañu fi joué moom macha allah donc ñëpp kontaan nañ donc xale yi école bi day dem nekk école salaam sax di jaajëfal tamit Moussa Mbaye nga xam ne diplôme yëpp moo ko defar di jaajëfal sama caméraman Wan Ellis donc moom léegi ñoo far on seela bu ma laa bokk Wan Ellis suñu caméraman tamit moom jaajëf kontaan nañ trop en tout ñoo ngi ñëpp di jaajëfal ñëpp donc dinañ ko incha allah rabi ba déwén ak jàmm salaam incha allah rabi jërëjëf